mbokk yi ñuy seetaan ci réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baalu ak di leen baal ak ñoo ngi fii nag ci Touba ci kër Serigne Touba gu mag gi nga xam ne nii suñ ko waxee rek xel yëpp dem ci dëkk bu tedd bi di Touba ndaje mi ngeen di gis nag li ko waral du leen lu ay soññe jëmale ko ci ndigal li nga xam ne nii Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké di jëw jëwriñu Xaadim Rasul yeesalaat na ko ci mbooleem jullit yi ak taalibe yi ci ñaari ajjuma yoo xam ne ni ñu ngi ko tuddee ajjumaay Touba benn ajuma bi ñu daal di koy def beneen bi nag ñu daal di koy dëgmal nii moo waral nag kuréel gi nga xam ne nii moo lëkkale mbooleem daara yi mbooleem sëriñu daara yi waaye ci njiitu sëriñ Xaban Mbacke ibn Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke ibn Xarim Rasoul moom mi nga xam ne nii moom la sëriñ Muntaxa dénk lépp lu jëm ci daara yi moo waral nag ñu daal di dajawaat fii ngir soññantewaat jëmale ko ci ndigal li ci ajjuma bi ñu dëgmal jataay bi nag niñ ko waxee léegi lëkkale na mbooleem daara yi nga xam ne ni ñoo nekk Touba ak li ko wër lëkkale na itam mbooleem kuréel yi saytu lépp lu jëm ci daara yi yi fii ci Touba kon kàddu gi wala kàddu yi nii rek lay demee kàddu gi jëkk gi dañ koy jox Serigne Cheikhouna Sankhé mu wax ci soññe yi ak organisation bi ak lépp lu ci aju bu paree dinañ joxe bu ca noppee dinañ jox sëriñ Xaali Jaxate mi nga xam ne nii moo jiitee kuréel gi nga xam ne moo lëkkale mbooleem daaray alxuraan yi nekk ci senegal banqaas bi féete fii ci tubaa mu nekkal leen fi bu noppee dina jox sëriñ Cheikh Ibrahima si euh, door a jox nag Serigne Cheikhul Khadim Mbacke mi nga xam ne moo fi teewal sëriñ Xaban mu tëj li nga xam ne moo di kàddu yi kon ñun ñëpp ñu àndandoo teewlu bismillah billahi samiil alim min charri seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah il qail fi muhkami tanzil faxsusil qasasa laallahum yatafakkaruun wal qailu aydan kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas taamuruuna bil maaruf wa tanhawna anil munkar wa tuminuuna billah alhamdulilahi wasalaatu wasalaamu ala man ursila rahmatan lil alamin sayidna muhammadin il amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mbokk yi ginnaaw bu ñu santee borom bi subhaanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu mboole mbokki jullit yi di nuyu itam mboole mbokki taalibe yi di leen nuyu nag ki turu sëriñ Mouhamadou Xabbaan moom Cheikh Mamadou Fadal sëriñ bi moo ñu yónni woon ay kàddu yoo xam ne daa bëggoon ñu jotal ko ci mboolem jullit ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi ak ki ñi nga xam ne ñoo nekk ci bitim réew rawatina nag ñi nga xam ni ñoom ñooy ay bokki taalibeem mu bokk ak ñoom sëriñ bi muy ndigal loo xam ne dafa bàyyikoo ci Cheikh Mamadou Mountakha euh, sëriñ bi joxe ndigal ci ajjumay Touba am na ci jenn joo xam ne weesu na ci ji ñu weesu waaye nag ñu dëgg ma leneen sëriñ bi yeesal ndigal li mu fas koo yeesal moom itam ci mboolem ñi nga xam ni ñooy bokki jullit yi ak bokki taalibe yi sëriñ bi wax na ne itam mu ngi sant bu baax sëriñ bi mu Cheikh Mamadou Mountakha di ko ñaanal yàlla suñ borom subhaanahu wa taala guddalaw fanam te wéral ay cëram nee na itam mi ngi sant mboolem mbokk yi nga xam ni ñoom la bokkal sëriñ Tuubaa yëpp di leen fàttali liggéey bi nga xam ni sëriñ bi mu ngi koy fàttalee di wax ni itam mook mboolem bokkam yi ñoom la sëriñ bi jox ndigal li waaye sëriñ bi daf koo def mu nekk ki nga xam ne mooy mooy soññeekat bi nee na itam mi ngi gërëm mboolem daara alxuraan yi di ci jiital itam sëriñ Mountakha Diakhaté mi nga xam ni moom moo jiite daaray kaamil ji fii ci Touba eh, ci bunt boobu itam ci lay jaar di eh, sant itam mboolem daaray kaamil yi nga xam nekk nañ fii ci réew mi ak kii bitim réew waaye nee na ginnaaw cant gi mi ngi ciy teg soññee bi di wax ni sëriñ bi joxe na ndigal lam daan joxe mi ngi leen koy fàttali te di ko ànd ak ñoom. ci noonu itam sëriñ Bassirou Habibou Mbacké moom mi nga xam ni moom moo jiite rabitatu madarisul Qur'an nee na itam ci lay jaare sant mboolem ñi nga xam ni. mooy da mooy daaray alquran yi waaye muy fàttali sëriñ Abibu ak njaboot gi nga xam ne ñoom la jiite ne sëriñ bi itam soññeewaat na ndigal li moom itam mu ngi leen koy mi ngi koy fàttali. ci noonu itam <clears throat> muy wax ni programme bi itam na nga xam ni noonu la daan tëdde rek noonu lay tëddee mooy bu ñu xëyee suba teel huit heures lañ koy tàmbali muy àgg ci dix-huit diggante bi nag julli àjjuma mi ngi fi waaye suñu àggee ci waxtu wa rek ñu jëfe na ko sëñ bi daan diglee mooy bu ñu àggee ci waxtu woowee ñu dallu. julli ba noppi door a woyal liggéey bi ba toll ci euh, ba ñàgg ci 18 euh, euh, heures ci ngoon nee na itam mi ngi sant ni mu santee góor ñi tey woo te di leen ci woo noonu lay sant itam jigéen ñi nga xam ni ñoo njabootu Serigne Touba gi bokk na ca soxna maam Marème soxna maam Marème Souhaïbou nee na mi ngi koy sant bu baax te di ko sonni ci liñ di ko soññ ci liñ dëgmal niki noonu itam soxna maam Bousso Mbacké Wilaya. itam mi ngi koy soññi mi ngi koy sant te di ko soññ ci li ci eh, li nga xam ni moom lañ dëgmal ni ki noonu itam maam isa eh, maam soxna maam isa Mbàkke ahlu café nee na mi ngi koy soñ mi ngi koy sant te di ko soññ ci ndigal li nga xam ne moom la sëriñ bi yeesal nee na itam mi ngi sant ñëpp te di soññ ñëpp itam maanaam kenn ku ci nekk na nga taxawoon ak fa nga taxawoon rek nga taxaw fa te wéyal liggéey bi te xam ni ñun ñëpp ñoo bokk ndigalal sëriñ bi te jëfe ndigalal sëriñ bi ci la suñu àdduna mën a baaxee itam suñu àllaaxira itam ci lay ci lay jage nee na itam li sëriñ bi di woote muy bisu alquran nee na loolee mooy mooy bëgg-bëggub sëriñ bi mooy bëgg-bëggub sëriñ Tuubaa ndax ay jëfam ak ay waxam ak mbindam lépp maanaam mi ngi jëm lépp maanaam alquran la ci gàttal daal dafa wax ni alquran mooy sëriñ bi sëriñ bi mooy mooy alquran ndax ku nafar mbindam da fekk sëriñ bi di wax ni kitaabuka diini wa huwa xilli wa muunisi hadaani bil haadi wa nafsi bihi zakka kitaabu rabbi kaana lii wa kuntu lahu wa lillahi bihi sakantu wajhal bi jaahil muntaqa hayaati rihayat alqurani si layaati nee na kon sëñ Tuubaa mooy alquran alquran mooy sëriñ bi nee na mi ngi soññ ñëpp di di sant ñëpp itam ci bàyyi gi nga xam ne dañuy bàyyi seen yitte bàyyi seen seen soxla yëpp ñëw teew ci bis bi ci waxtu wi nga xam ni moom lañ koy tàmbali ak ci waxtu wi nga xam ne moom lañ koy jeexal bañ tëj ko ñu daru dal ci yitt ya loo nee loola ñu ngi ciy sant mbooloo bi yëpp te di leen ñaanal te nee na ñaanam googu itam ñaanuk sëriñ bi moo ci jiitu ñun ñëpp yàlla nañ ci am tawféexi sëriñ bi ci barke Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu aousu billahi min asheytaan irajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin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 jamono dafa bari xat-xat lool te lëndëm waxtu wu nekk nit ñi di kër-kër yi waaye léeg-léeg sàkk ca waxtu woo xam ne donte suñ borom du ku ñuy jóge ba di ca dellu waaye féex ci lépp nag dem ba ci barab bu ëpp yaakaar ci barab yi toog fa tiim téere borom bi loolu day lu dal xel la lu am yaakaar la sëriñ bi digal ñu ko boole kook xasida yi ak sikrullahi te te yëpp boo ko boolee rek mu tënku ci zikrullahi alquran a ngi ci biir xasida ngi ci biir kon lafsul jalaale ci boppam taxul ñuy wax loolu di lu ama am solo ci Mahamadul xaban wax ne bëgg ñu bàyyi ci xel bu baax xam li ñu sëriñ bi bëggal ñu dimbali ko ci suñu bopp dimbali ko ci mooy fonk ndigal li góor góorgóorlu ci def ci lu ñu mën ak lu ñu mënut loolu nag ci turu sëriñ Bassirou sëñ Habib mii jëwriñu rabita bi ñu ngi ci woo mboolem sëriñ daara yi ak fu ñu mën di nekk ci dëkk bi ni ñu ko waxe woon ci àjjuma ji weesu ginnaaw ndigal li tey dafa ñëw di dëppook àjjuma penc mi dana xat defe naa ne loolu miinee soon na ko ca bu njëkk waaye ji weesu doy na ci firnde kon mag ñi nga xam ne mooy sëriñ daara yi ak donga yu mag yi nga xam ne eh, kàllafe nañ ba mën a sàmm seen bopp ñu bëgg fu ñu nekk ci dëkk bi bu alximisee ñu xëy si ba astafurlaa bu aljuma ñu xëy si te teel a xëy nga xam ne juróom-ñetti waxtu dana fekk ñëpp toog ba mën a tàmbali njàng mi te képp kuy ñëw it nga indaale kaamil boo jàngee kon loolu it ñu bàyyi ko xel bu baax a baax su ko defee gone yi moom ñu baatal leen ci daara ñoom it ñu dundal fa bis yi ak euh, suñ demee ba jumaa ji fees nag yeneen barab yi ci des yëpp di ay barab yoo xam ne barabi sëriñ bi lañ te ay kilifa nekk fa moom it ñu taxawal ko fa waaye xam ne nag xolub ndigal li mooy jumaa ji ci alxuraan ji kon ñi ngi ci woo ñëpp di leen ci soññ bëgg ñu maase bàyyi ko xel te ni ma ko waxe woon kero bu ndigal jubee kenn ku ne fexe bañ a bokk ci ne bu gaañi demee rek mu mat ko da ngay fexe ba bokk ci ñi nga xam ne ñoo koy feesal kon loolu ñu ngi ciy soññ suñu bopp di ci soññ sëriñ daar yëpp di leen ci ñaax bu baax a baax a baax a baax di jaarale loolu it ci wàllu taxawaay ba ak toppatoo ba ku mel ne sëriñ Omar ak maam sëriñ Ndiaye ci ñi ñu àndal ci wàllu organisation ñoom it ñu wàccaayee ca war yëpp ñu def ko ci soññee ba bu mbooloo mi dikkee wet guñ accès rek ñu man leen a joxañ fa ñuy féete ci jumaa ji ba nga xam ne kenn du amuk tumuraan kenn du amuk jaaxle kon loolu ñu ngi ciy soññee bu baax a baax a baax a baax di yeesalaat suñu kàddu ci fonk ndigal loolu ak jëme ci yitte ak bàyyi ci xel su ko defee nag noonu nga xam ne dana ko amee ci biir dëkk bi te sëriñ bi yërmande tax mu def ko ajjumay Touba kon keneen ku mu doon te fam nekk mu jàppee ak Touba te nekkal fa sëriñ ba it mu defale ko foofa noona xam ne yërmande jee tax waaye xam na ne su ne su su su ko woote woon yem ca rek da ngeen ñëw ni ngeen daan ñëwee waaye ginnaaw luy am na di amaat dégg ngeen ko ni mu ko waxee ci yeewee ga yërmandee ma tax sax mu wàññi ko waaye jàppoon na ko lu gën a yaatu loolu te teewuti diggante bi mën na ko fee amalaat kon ñu bàyyi ko xel te bàyyi xel ci pas-pas bi muy ni ko sëriñ bi waxee ñaan jàmm ci réew mi ñaan jàmmit ci nawet bii ñu jëm mu teel te tooy te barkeel lañ cey wut lépp ñu am ko te benn lor bañ caa am waaye bisub sëriñ Tuubaa bii di màggal gi it ñaan ci suñu borom def ci tawfiix goo xam ne màggal gu am na fi waaye gii di ñëw nag gune ne masamel bañ fee am nga xam ne mbooleem yi yi ko jiitu moo leen di faw xa ci lépp kon loolu it ñu fasal ko ci waaye nag ñu nit ñu teg ci suñ pas-pasu bopp muy moom Cheikh Mouhamadul Mountakha mii borom yërmande ji te du ñu woo ci lii yàlla nag suñ borom dollee yàggal te dolli koo wéral dolli koo kattanal ndax yaakaari lislaam la asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu waaw su ko defee it lu aju ci eh, njàng mi ku ne xam na ni ni ko sëriñ bi waxe dafay yendu ba juróom-benni waxtu ci ngoon kon loolu diggante bi laaj na fi ay xéewal la ci jiitu nag mooy ndox ndax ci waxtu tàngoor lañ nekk su ko defee loola it ñu ngi ciy soññ bu baax mbokki taalibe yépp eh, ku ko man rek eh, nañu ko andi ci jumaa ji bu yaatoo yaatoo yaatoo yaatu feneen fu ko nit di defee it ku leen ci mën a taxaw mu taxaw leen ci ndax ci waxtu tàngoor la ñu nekk loolu moom lu war a yaatu la waaye suñu jullee ba noppi it lu mel ne xéewal ya cay topp moom it sëriñ bi noonu ñu ko waxee woon ca njalbeen ga moom ci boppam moo ci jiitu waaye woo na ci bokki taalibe yëpp it képp ku ko man la nga ca man nga def ko donte euh, super la sax kenn ku nekk lam ca moon mooy mu def ko andi ko ci jumaa ji te suñ ko indee it sàmmonteeg ndigal li nga xam ne moo fi baaxoo am muy daairatu muxaddamatul xidma nga xam ne ñoom la jumaa ji nekk ci seen loxo ñu di ko toppatool sëriñ bi di ko toppatool taalibe yi képp ku ca giseek ñoom teg ko ci seen loxo dana àgg fa nga ko bëggee te du ànd ak benn yàq ndax ko ne xam na ne jumaa ji ni mu bindoo rawatina biir gi ak tàpp yi ak lu demee noona su ko ne indee saw ñam di séddale eh, dana indi ay ludut noona naka noonu it bitti bi karo yi su fekkente ne fenn fu nekk teg nañ fa muy tooy loolu dadut wóor sax ci ña nga xam ne ñoo fay jaar moo tax la gën mooy ku agsi rek te yor lu ñuy xewloo bunt boo jaar da nga fa fekk seen i ndaw boo ko tegee ci seen loxo danañ ko yóbbu ba mu àgg fa mu war a àgg jotli ko ni ko sëriñ bi bëggee waaye jëkk ñu koy jëkk lool nag soññee bi nga xam ne sëriñ bi ci boppam moo ci jiitu euh, santaane ko képp ku ko mën nga def ko kon képp koo xam ne defoon na keroog te yàlla man mayloo ko na ko defaat koo xam ne jotagutoon a defit fursaa ngi noonu muy occasion kon na góor góorlu ba dabaatal ko ci nga xam ne incha allahu taala ni di góor góorgóorloo ñëw laxasaayu ci njàng mi suñ àggee ca waxtu xéewal ba it danañ fekk mbooloo ma góorgóorlu ca ba lépp doy sëkk su ko defee sëriñ bi amee ko ni mu ko bëggee te bëggu donga yëpp mooy sëriñ bi am li mu bëgg yàlla na ko yàlla defal ak bëggam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. abdallah hasbala wala hawqala walhamdulatu wasalaatu ala nabi maa ngi nuyu bokk yi yëpp di wax ne lu baax du doy sant du doy looloo tax rek ma di ci teg ay kàddu waaye li ñu fi wax nii nit mënu fee wax lu ko gën a rafet nit mënu fee wax lu ko gën a jot waaye nag sañ na ma ci ñëpp ku dégg sama kàddu walla nga gis sama jëmm sañ na ma ci yow ñu bokk ñaan Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla nañu ko yàlla fayal Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na yàlla guddal aw fanam yàlla na yàlla may ko kàttan ndax kat moom xarakaatuhu wa sakanaatuhu wa afaaluhu wa aqwaaluhu wa isaaraatuhu kulluha dam ci jub rek mooy bëgg ñu jëriñu jëriñu àdduna ak alaxira te loolu nit gàtt gàtt gàtt xel am nga ci firnde réew mii de tollu tollu na foo xam ne ci at yi ñu weesu su fekkoon ne yàlla baaxewuñu ku mel ni ne Cheikh mun taxa mu teg ñu ci yoon yum ñu teg konoon de leneen lañu ñuy wax waaye wut ne ni ñuy waxee ni tey noonu lañ koy waxee te loola nag la mu fànq sax ñun xamuñu ko moom mi nga xam ne moom la yàlla faral baaxe ko muy xaadimu rasul lam fànq moo ko xam waaye ñun lam fànq sa xamuñu ko waaye nag di ci feeñ ci yiw ñun rekk dafa doy sëkk jàmm ji ne bay jii jàmm jii ñu am te gisuma lenn lu gën ci nit lu dul jàmm ci moom te day lu nit gàtt-gàtt am xel lu nit gàtt-gàtt aliwa xam nga ne day toog nga ba mu yàgg nga tiit ci fi nga xam ne bii fi la réew mu toll woon lu ci at yi rek loolu ab diir la boo xam ne bii ci tawféexi suñu borom yu ñu booleeg Cheikh Mouhamadul Mountakha mu teg ñu ci yoon woo wii mu ñu teg moom rekk moo ñu fanqal yi nga xam ne ñu ngi ko doon ragal yëpp te loolu lépp ci téere bi ak ci sikurulaahi la kon nag ñun ñëpp nañu bokk dimbale sëñ bi ngir jàmm jim ñu bëggal ngir mucc gim ñu bëggal ngir jariñu gim bëggal gim ñu bëggal adduna ak alaxira loolu nag mi ngi ci def ndigalam te loo ci def xeeb ko mi ngi ci bàyyi ay tereem te loo ci bàyyi rek lu mu bari bari nga xeeb kon ajuma jii di ñëw nañu ko daa defee naka jëkk nañ ko defee nu ko raw sëriñ Tuubaa la yàlla faral ajjuma jii ñu wees doon naa ko wax ak Cheikh sëñ Cheikh sëñ Abdou mi nga xam ne moom la suñ xabbaan def ci suñ kanam muy suñ jawrin liggéey bi ajuma ji ñu weesu yéeme ne yéeme gi kéemtaan loo xam ne man friixuma ko rek lu dul sëriñ tubaal la yàlla faral sëriñ tubaa nag mi yàlla faral nañ far moom lu ñu faree ak moom lum ñu digal luñ ci def nañ ko xeeb lum ñu teree luñ ca bàyyi nañ ko xeeb kon nag képp koo xam ne kii dégg nga woote bii muy sama bopp wala muy bopp keneen ñu barkeeloo ko ci woote sëñ bi woote bu ci nekk jàppal ne sëñ bee wax kon nag képp koo xam ni kii dégg nga woote bi na nga wuy jumaa ji mooy priorité bi jumaa ji dana teel a fees dana teel a xat la sës si jumaa ji moo ca tege kër ya wër jumaa ji ñoo ca tege kër ya wër kër ya wër jumaa ji ñoo ca tegee ñii di ko def noonu di ko def noonu ba génn frontière u Sénégal fépp foo xam ne fii ab jullit nga fa boo xam ne bii yashadu bi an laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa yashadu bi anna muhammadan rasulullahi bu fekkee ne jariñu àdduna la bëgg ak jariñu àlaxira woote baa ngi ne wuy si woote baa ngi ne wuy si maa ngi beral woote nag sama bokki sëñ daara yi maa ngi waral woote sama bokki sëñ daara yi ndax ñoom kat sëñ bi dafa mel ni woote bi ñoom la ko sëñ bi wooteel ndax ñoom ñoo nekk ci waar wi ñoo ciy liggéey ma ma may jéggalu nag may jéggalu waaye sañ naa nag kër sëñ Mor Khady ak kër sëriñ Malick Bassine ak fu ñu mën a nekk ak fu fa daara mën a nekk ajjuma ji di ñëw lum mas ta def ci pas-pasu alxuraan na ko defaat ci jàng mu sell ak jàng mu bari ni ko sëñ bi waxee rek ku sëlmal suba tàmbalin ba six heures ci ngoon wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. alhamdulilahi rabil alamin wa ala wa ashaabihi wa xayra xadimihi wa sallama taslima asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñoo ngi santaat yàlla sunu borom bi tabaraka wa taala julli ci yonenteem bu tedd alayhi wa sallam sant sunu yaakaar cheikhul xadim di ñaanal cheikh mouhamadul muntaka sunu borom bi yàggal ko fi lool te wéral ko naka noonu ñuy ñaanal mbooleem mbokki taalibe yëpp rek di leen ziyaara bu baax a baax a baax ci ndigalul sëriñ xabbaan mbàkke moom cheikh mouhamadul fadal muy ndigal loo xam ne nii dafa bàyyeekoo ci sëriñ bi cheikh mouhamadul muntaka muy bis bi nga xamee ne bisub mm, zikkar la jàng alquran ak qasida muy bis boo xam ne nii mbokk yi wax nañ ko léegi muy bisub ajjumay Tuuba bis boobu nag moom la ñuy fàttali mu nekk bis boo xam ne nii day mel ne sëriñ bi dañuy dañoo yeewaat rek waaye day mel ne ñett yëpp day mbir moo xam ne nii Cheikhuna Cheikh Ahmadul Xadim daan na ko def di ci soññ di ci dox jëm ca euh, rawatina nag alquran ji nga xamee ne moom bépp murit bu nekk dafa war di ci bàyyee xel bu baax a baax a baax a baax ndax sëriñ bi ci njàngalem bi nga xamee ne daan na ko def waxoon ne addim tilawatan li dal kitaabi walaw thalathatan min al asaabi wax ne nañuy sax ci di jàng alquran doonte ñetti isib la bis bu set nag loolu nag kon ak fàttali la waxoon na yit nag fa kullu muridin bi yaluudu fal yudim tilawatan li gayri dikrin qad rasim wax ne képp koo xam ne ni am murid la eh, na sax ci di jàng alquranul karim saa su nekk loolu nag moom la Cheikh Mouhamadul Fadal wala moom la Cheikh Mouhamadul Muntaxa eh, yeesalaat rek mu jëm ci mbooleem murid yëpp ñu di ko fàttali ak di ko bàyyiloo xel bu baax a baax a baax sëñ Cheikh Mouhamadul Xabbaan mi nga xamee ne moom la teg eh, moom la jël lépp ci wàllum alxuraan teg ko ci loxoom wax ne nan fi ñëw moom sëriñ bi nag wax ne nag mu ngi sant bu baax a baax a baax ci li weesu ak lii ñëw ndaxte eh, ñim àndal dañ ñoo xam ne ni ñu neex a àndal lañ. ndaxte saa yu ndigal jugee fu mu mën a bàyyeekoo wala bu bàyyeekoo ci sëriñ bi ñoom xàmmeetuñ dara lu dul jëfe ndigal la rek loolu nag mi ngi leen ci sant bu baax a baax a baax a baax di leen ci gërëm di leen xamal ne it moom euh, sëriñ Tuubaa la defal te ku mën a fay la koo xam ne nii moom loo ko defal moom moom moom gis ko loolu nag kon mi ngi leen ci sant bu baax a baax a baax ci biir sant googu nag euh, euh, ñu ngi ci am ñoo xam ne nii ñu ngi leen ciy jiital bu baax a baax ngir ñu bàyyee ci xel ci ñu ñu ñu def ci seen kem kàttan rek ci ci soññe yi euh, buñ ci jiitalee kilifa yi toog sëriñ Mountakha Diakhaté euh, naka noonu it sëriñ Xaali Diakhaté mii sëriñ Mountakha jaxate moom moo jiite wàllum daaree kaamil yi euh, ci biir jumaay Tuubaa ji kon bu ko tuddee rek tuddaale mbooleem daaree kaamil yi nekk ci senegal gépp rawatina ci Tuubaa gi nag rawatina ci yoonu murit waaye naka noonu it sëñ xaalim yi nga xam ne ci rabita bi euh, mi ngi ci mi ngi ci mi ngi ñëw taxawee ci euh, ànd koog njiitam la sëriñ Habibou Mbacke sëñ Basiru moom sëñ Habibou naka noonu mu ngi leen di sant bu baax a baax ci liggéey bu am solo boobu ñuy def euh, kon ku ku ku bokk ca biir rabita ba rek sëriñ bi mi ngi koy sant bu baax a baax a baax te di ko soññ ci yi ñëw incha allahu taala. naka noonu sëriñ Ibrahima si nga xam ne moom it kenn la ci biir yoon wi. moom it am am mbooloo mu baree bari mu ne ci ginnaawam ñoo xam ne ni ay jàngalekata alquran lañ moom it dégg nañ ay kàddoom bu baax a baax a baax kon naka noonee soññ bi rek mi ngi mi ngi jëm ci ñëpp rek naka noonee it euh, sëriñ xaadimul quran nga xam ne ci daaru salaam am ci taxawaay bu am solo boo xam ne ma ngi ko cay taxawee moom naka noonee it sëriñ Jili Ñang mii ci sunu ginnaaw bokk ci ñi nga xamee ne it ci wàllum alquran kenn du leen kenn du ko tudd kenn du tudd alquran ci biir dëkk bi te duñ ko tudd moo bokk moo mu jiite jaisatu a Cheikh Ahmadul Xadim moom it ak ñim jiite ak seen wàll gi yëpp rek ñoo ngi leen ci soññ bu baax a baax baax a baax sëriñ bi wax na nag mboolem daaray alquran fu mu mën a nekkee di murit euh, wala sax ñi ko murit ndax lii moom njëriñ ñëpp la euh, ñu ngi lay woo bu baax a baax ci bis bi di la ci di la ci soññ bu baax a baax ñoo xam ne maanaam moom fépp daa war a daa war a fees dell kaamil yi jolli alxuraan ji di jolli ba ba ba ba keroog ni ko sëriñ bi ba ni ko sëriñ bi bëggee rek ci tàmbalee ci huit heures ba ca dix huit heures incha allahu taala ba la ca war a dox ci diggante bi yëpp mu dox ca waaye loola it nag ci biir jumaa ji lay nekk nag ci biir jumaa ji la tàmbalee comme ni ko sëriñ Ibrahima waxee ba ca frontière ba ba ca frontière ba nag lañ cay jublu mooy mbooleem foo xam ne ni it ab ab jàngukaay la foofa yit maanaam moom euh, alxuraan ji dafa war a jolli. dafa dafa war a feeñ bu wér a wér a wér a wér a kon kon kon moom it ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax sëñ bi nag wax na nag ci bis bi it nag maanaam eh, Cheikh Mouhamadul Mountakha ji nga xamee ne ñoom la ko booleel nga xamee ne mooy zikurul ilahi yi te mooy buñ ko tuddee Baye Fall yi seen xel yi dem ci ñoom mm-hmm. ñu ngi leen ci sant bu baax a baax ci seen taxawaay yi naka noonee ahlul qasida nga xam ne buñ ko tuddee suñu mbokk yi suñu xel yëpp dina dem ci eh, sëriñ Hamsatu Mbàkke moom sëriñ Chouaïbou naka noonee it eh, sëriñ ki nga xam ne moo jiite xisbu tarxiya eh, di sëriñ Youssou moom it eh, nga xamee ne xel yëpp dina dem ci moom incha allahu taala ñoom ñëpp ci seen taxawaay yu am solo yooyu ñu ngi leen ci sant bu baax a baax a baax waaye tamit nag eh, ci biir liggéey bi nga xamee ne ci biir jumaa ji lay tàmbalee mu am ab daayira bu am solo boo xam ne nii moo fa nekk di taxaw taxawaay bu am solo muy waa daayira muxaddimatul xidma nga xam ne kenn lañ ca biir ñoo ñooña it sëriñ bi ci mu ngi leen di sant bu baax a baax ci taxawaay ndaxte saa yuñ ñëwee yaatal geeg ak nin koy doxalee loolu mooy wërteef yi nga xamee ne moom nin ko baaxoo xamee rek dafa jëm ci Cheikhul Khadim te bu jëmee ci Cheikhul Khadim moom ñëpp dañuy maase nekk benn ba noppi di ko def ci defin woo xam ne defin wu rafet la kon daal sëriñ bi mu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di woo ñëpp nag ci eh, ni ni ni ko sëriñ bi wootee mooy mooy mooy lu waay man alquran nga mën a jàng ñëwal nga jàng alquran zikrul ilaahi nga man ñëwal nga def ko xasiida nga man ñëwal nga def ko dangaa mën a bernde mooy mooy yàlla la na la nga mën a togg ay togg ñëwal bu demee ba feesit maanaam xoolal ka la gën a ña gën a jege te nekk ca koñ ba di jàng nga yëkkati loolee jox leen ko loolu buñ ko defee rek ni ko sëriñ bi bëggee incha allahu taala dinañ ko amee ñoo ngi ñaan ci darajay cheikhul xadim nag lii lépp luñ ci bëgg wala lépp lu ci sëriñ bi bëgg rek yàlla na ko ci am te weesuwul nag moom mooy am ngërëmalu sëriñ Tuubaa ndaxte ndaxte loolu dong lañ ciy séentu te te ñu ngi ciy am njort bu baax a baax a baax a baax ndax ñett yi nga xamee ne moom la sëriñ bi boole wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu sëñ bi nag mi ngi sant bu baax a baax it euh, bi yëpp rek ci seen taxawaay am solo yi nga xamee ne taxawee nañ ko ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ngi nuyu kilifa yu tedd yi fi teew yëpp ci jataay bi di ci jël sëriñ Modou Xabaar moom Cheikh Mouhamadul Fadil mi nga xam ne moom la sëriñ bi tekk njànguma alxuraan yi ak lépp lu jëm ci daaray alxuraan yi ci loxoom di ko si ziyaara bu baax te di ko ndokkeel ci euh, liggéey bu rëy bii nga xam ne sëriñ bi yëkkatiwaat na ko tegaat ko ci loxoom mu ànd ko ak ñi ko war a àndal ñëpp ni ko kilifa yi jiitu waxee rek ñi ñu ñu booleel ñu war a ànd ñoom liggéey bi ñëpp suñu xel dal na ci ñoom ndax yàgg nañoo ànd ak ñoom liggéey bi rawatina nag euh, njàng jàngkati alxuraan yi nga xam ne ay at yu baree ngi nii ñuy ànd ak ñoom ci liggéey bi ci biir jumaa ji mel na ne lañ fay def ñoom tàmm nañ ko waaye ñu ne tàmm nañ ko li des rek mooy ñi nga xam ne ñooy ñëw naka noonu itam euh, jànkati xasida yi ñoom it tàmm nañ ko ak ñoom euh, Baay Faal yi itam ñu ngi koy tàmbalee miin ak ñoom ndax xëy na ñoom ñoo mujjee dugg si ci liggéey bi waaye nag ñoom ñu neex a waxal lañ ndax ndigal ndigal rek la ñuy déglu ci ci lañuy yem kon nag suñuy kàddu du ci sori day jëm rek ci worma ji te jàpp naa ne ñi jiitu wax nañ ko léegi ñu bàyyi xel barab bi yokk ko wormaal jëm ci wàllu cet gi moytu taqal yi nga xam ne moom lañ fiy taqal waaye moytu itam jaxasoo bi niñ ko daan waxee góor ñi am na fu ñu leen fàggul ngir ñu war faa nekk nañ fa yem jigéen ñi am na fu ñu leen fàggul ñu war faa nekk nañ fa yem te bañ a jaxasoo la jaresteen mooy képp koy indi ay xeewal niñ ko waxee woon ci yoon wu njëkk wa rek boo dikkee da nga fekk ñu waajale ay wàññi yoo xam ne lay xewal yëpp foofu lañ koy dajale su dajee ñu séddale ko euh, fu mu war a dem fu nekk dana fa dem nañ ko waxee woon ci yoon wu njëkk biir jumaa ji sa euh, jumaa ju njëkk ji doonul fu ñuy séddalee ay ñam euh, bu ñu egsee ci war a séddalee ñam dañuy sàkku ci ñëpp ñu génn ci yokk bi ngir man faa xewloo seetlu nañ nag ne ajjuma ji weesu am na ay benn benn yu desoon ci biir toog fa di xaar ba dañoo mujj di yéene ci jumaa ji naan leen nañu génn te loolu waxoon nañ ko ci woote bu njëkk ba kon na ko ñëpp gën a bàyyi xel bu baax a baax ndax foofu moom du barab bu lekkuwaay ndax diggante waxtu yi ñuy julli yi dafa jege. diggante fi ñuy jullee tisbaar ak fi ñuy jullee takkusaan ñu mën faa xewloo ñu mën koo waajal waajtaay wa ca war julliwaat fa takkusaan dana jafe lool moo tax ñuy sàkku ñoom ñëpp ñu génn ci yokk bi euh, xewloo fi boobu takkusaan jotee ñu mën a jullee foofu ngir fi ñu xewloo moom bu ñu noppee ba nit ñi ko noonu dañ fay des xasaat ko am set wecc balaa waxtu wee di balaa waxtu wa cee topp di ñëwaat mm-hmm. kon nag ñu ngi sàkku ci ñëpp ñu dimbale lañu ci warma ji coow li waxoon nañ ko bii bees bii weesu jaxasoo bi góor ñi jigéen ñi waxoon nañ ko bii weesu xëy na jàmbaar lañ ci loon lool góor góorgóorlu nañ ci nag ba takkusaan jot waaye bi takkusaan jotee nag seetlu nañ ne mm-hmm. jaxasoo bi xaw naa bari donte nag moytu nañ ko ci biir jumaa ji fu baree baree baree bare waaye ci biir jamono yi yeewee ko gis nañ ne xaw naa bari tuuti kon nag nañ ci gën a bàyyi xel bu baax a baax te xam ne sëriñ bi daf ko bañoon lool te ni ma ko baño woon ñii ko fi wuti noonu lañ ko bañee ñi ngi soññi ñëpp ñu teel a ñëw ci njàngum alxuraan mi te bàyyi ko xel yi nga xam ne moom la noonu la Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daan wax rek ca jamono yi mu daan santaane njàngum alxuraan da ngay ñëw toog mu ne la laa yamassuhu illal mutahharuun nga dem jàpp ñëw mu waxaat la ko nga dem sangu ñëw mu waxaat la ko nga kon luy des mooy sa xol nga teewlu sa xol euh, delloo sa bopp ci yàlla xam ne yaa ngi jàkkaarloog suñu borom xam ne barab bii nga toog itam barab la boo xam ne ci barab yi yàlla gën a tànn ci àdduna ci la bokk ñu suñ ñu soobee suñu borom muy tànn ay barab di tànn ay jëmm di tànn ay waxtu ca coobeere googee la ko tànn la ko soob mu tànn barabu Sëriñ Tuubaa bii muy mu bokk ci ay barabam kon nag nañ ko bàyyi xel te wormaal ko te sàmm ko te eh, ànd fekk tegg ni mu laaj yëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërë ngeen jëf mbokk yi kon kàddu yaa ngi noonu di kàddooy soññe waaye di kàddooy cant jëmale ko ci ñaareelu ajjuma gannaaw ndigalal cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké ni ngeen ko déggee ci kàddu yi nii mu ko digalee daaray alxuraan yi ci njiitu sëriñ Xabbaan Mbacké ibnu cheikh Mouhamadou Fadal Mbacké ibnu Xarim Rasoul noonu la ko digale Baye Fall digale ko jànkatu xasida yi lépp doon benn kon nañu yee salaat pas-pas yi feddali laxasaay yi soobu ci ndigal li jëf ko jëfin wu sell nu dëppook ni ko sëriñ bi bëggee di ñaan daje ci ngërëmal sëriñ Touba Cheikh Ahmadou Bamba Xarim Rasoul ci barkeb alquranul karim wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu